gàtt tënk mooy dafa nekk dañ daan ñëw cees rek def atelier dem ren euh, présidente Awa Marie Coll Seck euh, ànd ak coalition Public Secou Payé Ibrahima Sori Diallo jiite ma jiite ko Thiès ñu nii dañuy def semaine de l'ITIE gox bu ñu dem dañ fay def ñeenti fan cees ñëw nañu def nañu CRD bi gouverneur daje ko ak toutes les parties prenantes ak euh, ñu jógee ci gox-goxaan yëpp le maires les communautés bi ñu fi jógee ci ngoon gi dem nañ seeti famille religieuse yi imam association des imams sëriñ Mounir Diogène sëriñ ak imam yëpp jox leen jébbal leen rapport bi parce que ñoom tam ci lañ bokk ñu ngi def ay xutba sa réew mi fi mu jëm dafa laaj am consensus maanaam ñëpp déggoo ci ndax pour mu am jàmm jur njariñ sa ñoom seen ñaan am na solo trop war na jëm ci église bi tamit gis nañu conseil municipal bi dajale nañ tam borom xam-xam yi xam nga Thiès dafa nekk euh, dëkk boo xam ne université de Thiès mi ngi fi école polytechnique ISEP c'est li wàllu contenu local formation qualifiante dafa nekk loo xam ne war nañ leen ci waajal def ci benn waxtaan bu xóot pour xool naka la région bi mën a profiter ci wàllu formation qualifiante ci wàllu emploi qualifiant ci wàllu PME PMI local ci wàllu sous-traitance ci opportunité contenu local boobu beneen bi tamit dem nañu dàngoot visite parce que tamit lañ doon dox ci rapport il faut ñu dem xool ndax entreprise yi ñu ngi chartoog chartonteeg la ñuy bind ak la ñu seq état et déglu population bi ñu fa demee tamit déglu nañ leen dem nañ ci usine bi dem ñu àndoon dem nañu kayaar aussi kayaar xam nga euh, gaz bi commencé gul sax waaye dañuy teel a waajal population yi pour ñu xam ndax mbir mi euh, ñoom ñoo ko moom peuple bi léegi nag mbir soo moomee mbir pour nga mën ci taxawin taxawin bu rafet taxawin bu responsable il faut nga xam mbir mi naka la demee rapport ITIE bi nag dafa lay jox nataal ci secteur extractif maanaam chaîne de valeur bi du début à la fin ci wàllu contrat yi ci wàllu production yi ci wàllu lan la jural askan yi mu mën a nekk outil de plaidoyer su dee loo xam ne la seen ak ak seen yelleef la ñu mën ko laaj leneen itam ñu am accès à l' information pour mën taxaw seen taxawin euh, dem nañu aussi tey moom la ñu tëjee ñu ni Thiès dafa nekk dëkk boo xam ni maanaam presse locale bi ñoom ñoo bokk liggéey ndax société civile lañ bokk. am ñu leen teewal ci kuréel googu di itee muy SYNPICS waaye yamuñ ci loolu ñu ne nañ leen waxtaan ak ñoom ndax waxtaan bi li muy jur mooy ñoom ay relais lañu sa cees dafa am taarixu nekk région boo xam ne mën nañu luñ fi expérimenté dafay jàll donc li ñu def cees suñ demee Saint-Louis bëgg nañ def la même chose suñ demee Tamba def la même chose suñ demee Matam def la même chose di rafetlu nag taxawaayu aussi kilifa yëpp mais taxawaayu yéen surtout taskatu xabaar yi ndax tey rapport bi ñu vulgariser ko maanaam population yi xam li ci biir sa loolu mënul am lu partenariat bi nga xam ne am nañ ko ak yéen du at bu ñu ñëwee gis nañ que ni au niveau national comme au niveau local da ci def seen bay seen wàll ci waar yi ba askan wi à la base xam beneen bi fas ñu yéene yampi war nañoo demaat ci gox-goxaan yi rapport bi dañ ko def en langue nationale dinañ ci def ay fora def ci émission radiophonique def ko aussi ay guide illustré loo xam dañ koy def nataal pour que population yi ki nekk làkk Soninké kii làkk Tukulóor kii làkk Bambara ñëpp mën a xam li ci xew loolu daal pour tënk bi daal mooy am nañu satisfaction trop ci Thiès état bu Thiès bi léegi nag ñaan yàlla yeneen état bi mu nekk euh, la même chose mais li ëpp solo rek mooy njariñ bi yëg-yëg bi rapport baax na comme ni ma ko waxee code baax na xam nga dama koy faral di tooñ sax ne leen croissance réew mi mi ngi dox waaye croissance boobu war na ànd ak croissant croissant bi nag mooy suñu mbokk njaayee ni lii dugg seen biir ñu mën a yëg-yëg seen la ñu war a jot ñu jot ko daal sa loolu nag sooxee na trop sa loolu at bu ne ñu def ci recommandation euh, Moustapha Fall laa tudd man maay responsable affaires juridiques comité national ITIE alors recommandation yi nag euh, daanaka dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool lool lool ci wàllu doxinu mine ak pétrole Euh, bi ci njëkk bi nga xam ne ren comité national ITIE bi mu génnee rapport bi moom la gën a fësal mooy ñu fexe ba nan la ñuy gën a liggéeyee ci wàllu na ñuy joxe permis yi ak licence yi ci wàllu secteur boobu noonu ñu fexe tamit ba nu ñuy amee lu ñu naan manuel de procédure boo xam ne day gën a leeral li ñu naan critères techniques et financiers su ko defee képp ku nga xam ne ñëw nga ci réew mi ñu jox la euh, permis ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay liggéey dinañ mën a xam ci yan anam lañ la ko joxe ñu gën koo ñoŋal ndaxte effort yu bari am na ci boo xoolee code pétrolier bu bees bi dafa wax ne léegi appel d'offre la euh, ak tamit wax na ni dana am commission boo xam ne mooy mooy mooy examiner euh, ba pare euh, bokk ci li nga xam ne mooy négociation bi loolu tamit day gën a ñoŋal li nga xam ne mooy transparence des contrats te ITIE di ci liggéey beneen recommandation bi nga xam ne tamit ITIE wax na ko ren mooy ñu fexe ba lii nga xam ne mooy euh, données de production te entreprise yi di ko génne ministère des mines tamit di ko xayma ITIE aussi di ci liggéey données yooyu ñu gën ko gën ko gën ko gën ko def mu gën a leer maanaam ci wàllu calcul yi moo xam quantité bi moo xam volume bi loolu ITIE euh, ren jii tamit gën na ci attirer attention pour ñu pour ñu def ci jéego beneen recommandation bi nga xam ne tamit ITIE def na ko mooy ci wàllu exonération fiscale maanaam li nga xam ne état bi bu entreprise bëggee ñëw bëgg a seet da koy da koy da koy da koy permettre mu def exploration xool ba xam dana gis ci ci diir googu dafa am lu ko état bi di accordeel moom lañ naan exonération fiscale léegi nag it ITIE dafa wax ne dina baax lool léegi ñu gën a évaluer li nga xam ne mooy li ñu naan les coûts des exonérations parce que loolu dafa nekk recommandation boo xam ne ITIE Sénégal ITIE international moo ni réewu Sénégal foofu day comité national ITIE dina baax lool mu liggéey ci ak li nga xam ne mooy les administrations fiscales parce que loolu dina gën a permettre euh, ñu xam réellement euh, la contribution du secteur extractif waaw bu ma résumé daal daanaka recommandation yooyu moo ci gën a fes di wax ne tamit euh, recommandation yi ITIE di def njëriñ bi mooy mooy mooy mooy tontu li nga xam ne mooy vision la vision du comité national ITIE mooy impulser les reformes maanaam dafay gunge boo xoolee ñu ci bari dañ ko dul bàyyi xel waaye it yi njëriñam lu ci ëpp mooy maanaam dafay nit fi nga xam ne moo sooxee pour gën a attirer attention pouvoir public yi société civile communauté yi ñu xool foofu bu ko defee réew mi gën a mën a profiter ci ci ressources yi bu ñu nee réew mi nag askan wi yëpp askan wi yëpp la ndaxte constitution bi moo ni ressources yi askan wee ko moom léegi nag laaj bi nga doon laaj noonu ci wàllu entreprise yi euh, ITIE tamit dafa am li ñu naan exigence bu bees euh, boo xam ne 2019 la transparence environnementale léegi ci wàllu woowu nag li ñuy li ñuy gën a ñaax rek mooy que entreprise yi li nga xam ne dañ koy xaatim ndaxte boo jëlee convention yëpp dafay am ay clause yoo xam ne danaan la mesure sociale mais aussi danaan la mesure environnementale loo xam ne dafa tegu ci mbagg entreprise bi obligation de réhabiliter mais en même temps fonds de garantie de réhabilitation des sites pour chaque année nga am loo ci dugal am na yoo xam ne mi ngi sooxe ci mbir mboobu moo tax ITIE ci rapport yi gën a ñëw dina gën a attirer attention pour mu am li ñu naan transparence environnementale maanaam compagnie yi obligation yooyu noonu nekk seen mbagg ñu mu ñu ñu di ko di ko dog di ko di ko doxee ni ko loi bi waxee ndaxte loolay mën a tax population yi ñu mën a compenser ñoom impact yi nga xam ne dañ koy subir directement ci wàllu exploitation. léegi pour li mu li mu jëlal région bi euh, tey si rapport bi li feeñal ci olof. mooy 122 milliards moom la secteur bi jur 59 virgule ñaata milliards lu jógee 60 milliards ci région bi la la jógee région de Thiès daaw mi ngi woon ci juróom fukki milliards daaw jéeg ñeent fukki milliards soo xoolee ñetti at région bi 150 milliards la dugal gafaka état mais li delluwaat ci région bi dafa néew trop ndax ci 59 milliards yooyu et quelque 503 millions rek la entreprise yi dugalaat. ci région bi en derme de dépense sociale te soo xoolee ci wàllu santé 2 pour cent rek la ak li mu indi ci lorte ci wàllu santé ci wàllu environnement 2 pour cent la ak gis nga li nga wax léegi Ngoundiane ak Darou Khoudoss ci wàllu GIE locaux maanaam pour soxali les GIE pour ñu mën am sous-traitance 3 pour cent la mais parallèlement gis nañ ñu joxe ay billets à la Mecque mais xam nga billet Màkka loolu c'est RSE lañ koy def ñoom ka nga ko jox rek lay jariñ mais jariñul communauté bi donc foofu la ñu nii il faudrait que fonds de péréquation yi nañ ko delloo mais mieux contenu local nañ ko jëmmal parce que amagul waa sur le secteur minier ndax 574 milliards ci la région 223 milliards yëpp delluwaat na ci donc soo xoolee privé bi mën na ci gagné mais communauté yi ñoom gisaguñ ci seen bopp moo tax ñu wax ni foofu nag lu ñu war a jubbanti la parce que li may wax ne rapport baax na code baax na mais population ñu lekk rapport rapport bi yëg-yëg moo gën c'est la ñu war a delluwaat ci ñoom il faut que état taxaw ci cimenterie yi par exemple Dangote mooy première cimenterie fii en contribution 20 milliards la dugal ñoo yore Corée du Kajaka euh, dama juum ciment ñoo def 20 milliards Dangote moo ci topp mais tey cimenterie yi am na benn sur tax de 5000 francs bu ñu dugal ci tonne ciment bi su consommateurs yi ñoo koy supporter alors que état am na 10 pour cent de part gratuite yoo xam ne cimenterie yi du ñu ko fay donc am na yoo xam ni ay incohérences yu am ICS par exemple. soo xoolee ci entreprise yi nekk ci région bi yëpp mooy première entreprise bu fi jiitu mais ci rapport bi 5 milliards rek la ICS dugal ci gafaka état parce que ICS du fay redevance du fay taxe du fay droit fixe ndax code ba leen tënk mooy code 88 te suñuy xaatim contrat am clause de stabilité dañuy fexe ba lépp luy lu bees taxe dootul leen dugal c'est ICS gis nga loraange gi muy di ci foofu yëpp donc laaj na état tey taxaw pour renégocier wala revisiter contrat yëpp pour que état mën ci gis boppam askan yi mën ci gis seen bopp parce que 2 pour cent d'impôts locaux ci am soo xoolee c'est moins de 2 pour cent du budget budget 4000 milliards ñu la 122 milliards le secteur bi jur donc amul amul njariñ pour réew mi en plus parce que en plus bu ñu ko fàttali ñëwuñu pour soqali dañoo ñëw pour def profit population yi nag ñoom tamit état daf leen war a taxawu état aussi war na fexe ba gis ci boppam pour que mu delluwaat ci kooku xaani loolu daal rapport bi tam feeñal na ko.